bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk Ahmed jox ko da la ko jox jox naa moo di ci loo ne moo am na ku wéree di ku nekk fii xoolal ma xam mu ngi côté bi di fi waaw waaw. kay ndam rek mbër. nga di magu xale yi dafa naa yaa ngi indi xale bi tey ma gis ko macha allah mu ne ci confiance totale Mod Dia dimanche mu war a bëri ak Thiat actuellement daa ni pare ngeen. waaw sant yàlla alhamdulilah. xaar incha allah lo 11 jot ñu dem motali ci kàntanu yàlla yéen a ko gisal seen bopp ku gis Mod Dia xam ne. bi nekk ndam mu mag la champion la donc pour nga dégg ko il faut nga dem ak ay armes yu a mën ñu li ñu liggéey dinañ ko appliquer si kaw caat jàll ci kawam dem ci leneen incha allah ci kananu yàlla waaw. combat mën naa gaaw wala mën na yéex. waaw xam nga combat de lutte nga koy préparé ci côté yëpp mën nga ñëw mu gaaw comme mën nga ñëw mu yeex mais ce qui est important rek mooy nga liggéey lu la may ndam que mu yeex wala mu gaaw moo jàppare na ci loolu yëpp. parce que liggéey na endurant il est endurant il est résistant te am na doole donc combat bi dem du minutes wala mu yem ci une minute benn la ci ñun donc li am solo rek mooy ñu am ndam te incha allah dinañ am ndam. amu leen len lu ngeen di moytu ci caat tamit. no bu ñu demee bay moytu caat ñu bañ a dem bëree ji ak moom mais nag dinañ respecter adversaire bi ndax adversaire bi ñu bëreel tey am na lu ko indi fi mu nekk borom ngor la borom fulla la borom fayda la te bërekat la. cër boobu dañ ko koy jox donc jox bi cër bi nag mooy tax aussi tamit ñu mën a exploiter li ñu liggéey jëmale ko ci moom parce que du adversaire boo xam ne war nañ ko sous-estimer Pape maa ngi lay. waaw ah, grand bi maa ngi lay bëgg la. ci loo ne yàlla bu baax. daa mel ni pare ngeen de. waaw pare naan ñun toujours dañuy pare quoi toujours dañuy pare mooy loolu. avec Thiat. waaw Thiat da nga koy lijjanti rek Thiat xale la da nga koy nax teg si yoon rek. Thiat neex naa na. bilaay neex naa ku neex a nax la. parce que amul amul safara quoi. amul safara mu ngi États-Unis di liggéey de. ñun ñu ngi fii si si côté Baye laa nekk jàmm fi lu ne am na fa. fa la ñuy entraînement yi demuñu benn diin te suñuy moro abuñu kon ñu ngi sant yàlla quoi. caat lu koy daan dimanche. fulla ak fayda ak jom rek. parce que moom daanaan la day sa sa làmb day nii état quoi. dëgg yàlla da nga koy wax li ne si moom. mais ñun ñoo gën a soxla bis bi allahu rabi. ñoo gën a soxla quoi. xel daal dal na actuellement. bu baax. instant yi moom sant yàlla quoi. yàlla yàlla moo tale rek. yow amagoo combat. non amagoo combat. yaa ngi xaar. waaw maa ngi xaar. koo bëgg a laaleen. maa ngi xaar Alioune Seye 2 wala wala Wuli 2 rek. Alioune Seye 2 wala Wouly 2. waaw Wouly 2 moom nekku fi. waaw mais mën na jël amaam loolu dara. oui. yàlla kontaan ci yow. caata ngi nii ci loo nekkati. waaye Babacar sant nañu yàlla bu wér di la bëggee di bëggee waa Elzo sanu doomu nday ñu ngi lay ziar bu baax di am contentement nag si ñëw bi nga ñëw Yoff ah. waaw tey de ñëw naa Yoff waaw kontaan nañ si torop boo di Yoff pare nañu pour dimanche waaw waa Yoff pare nañ mbër mi pare na li ñuy ñaan yàlla mottali di des rek caat ñëw taxaw dëggal boppam jël wàlla jël wàllam si nag wi rek caat neex naa joxum saam non caat tàngu rek waaye tàngu caat doy caat waa ñaar tali la de. caat fu ko moojee jaarloo fa lay jaar incha allah. yow yaa wax lii. maa wax lii. est ce que loolu nga ko waxee noonu lay demee. noonu lay demee VAR daa am léegi si lamb ji mais xam naa ne du ma dugg VAR ndax moojee loolu lay def. ah boo juumee gaa yóbbu la VAR. koy daan incha allah jël bu rëy sax du ndaw sax. Ah. waaw incha allah amagoo combat. waaw amaguma combat mais maa ngi toog. di xaar promoteur yi mais di xaar waa Vox Arena quoi nag wax dëgg yàlla ah. waaw. combat yi amoon dimanche loo ci wax am na ay gars yu daan de. combat yi amoon dimanche man gisoo gannaaw. ak kan. mbay guy gi ak Balla. moom nee na moom xalaatul moo leen. ñoom ñoom ku ci bañ rek instant yéen tool ne si kanam. ñu ngaa leen avance mbay guy gi. barki Alaaji Fàllu Mbàkke bu fekkoon da nga ko ëndaale du ñibbi barki Muhammad. mbay guy. Babacar ñoo ñëpp am na seeni pexe. mais da da damay xalaat mu ëpp la doole de. barki Alaaji Fàllu mbay guy gi bu ma ko jëlee génn benn deux mois su ma ñëwee ëpp ko doole. billahi benn deux mois su ma ñëwee ëpp ko doole Babacar man xale laa. deux mois ngay wax mais Mbaye actuellement am na doole de. Mbaye guy gi mag la Mbaye guy gi bi muy bëre man xale laa. Mbaye nag du mag yow it mais man bi muy bëre xale laa bi may gis Mbaye guy gi moo rawaan rek lool kañ la yàgg na bu ma jëlee ma duma ko daan ko amul lu ma siy neexal. barke Mbaye Mbaye moom dana dana dépassé. non waa xëy na loolu am na mais lamba mu gis sunu kanam man xale laa damay liggéey te incha allah dama ko fiy baay waaw incha allah. Thank you. naa ñu ngi fi nga xam ne moom moo di yoof li ñu fi indi nag moom moo di combat Modou Dia ak Thiat Modou Dia tey woote fii di def open press am dimanche bu mu war a jàkkaarloo ak Thiat combat bii nag bu may fàttaliwu bu may fàttali bi muy bi ko presse di taxawal mu ko taxawale woon borow oto fa la njëkk a daje jour boobu defe naa ne man maa toogoon seen diggante kera tuut ñu xeex fa mais nag yàlla di dogal di dogal ba tey bés bi jot ñu régulariser ba war a dim war a bëre dimanche. kon yaat ma defe naa mbir yi fi mu nekk nii moom lay jeex na yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba dimanche ñëpp wér ñëpp tal ko ñu bëree combat bi que le meilleur gagne mais Modou Dia dañ lay nuyu di la ziar di nuyu kul koo xam ne nii doomu Yoff nga tey ñu fekk la fi nga xam ne moom mooy sa dëkk di Yoff ñu lay nuyu di la ziar. waaw bismillah subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla illa billahi al-ali al bon sant naa yàlla julli ci sangu-sang yi gërëm sumay ñaari wayjur di sant ñëpp ñu nga xam na ñëwal nañu ma ak ñi ma bëggoon a ñëw te mënuñoo ñëw ak ñi nga xam ne seen yéene egsi na te gisuma de maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di leen wax ne kontaan naa gis naa taxawaay bi gis naa teewaay bi yàlla na sama borom fay leen. mu de combat boo xam ne yàgg na macha allah corona bi teewuñ ko yàlla dogal tey ñu régulariser ko ngeen war ko bëri dimanche fan la toll maanaam tolluwaayam ay quelque jours moo des ci combat bi Modou lu mu yëg fi mu taxaw nii nii nii. waaw alhamdulilah instant bi je me sens en euh, maa ngi maa ngi maa ngi yëg sama bopp bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla. sentiruma blessure sentiruma fatigue sentiruma stress lépp alhamdulilah bon di entré di def ay affaires yu sew rek dernier réglage yi daanaka jeex na détail mystique yi xam concentration bi nekk ak suma gars yi relaxé amul benn stress. caat bi ngay bëreel xam nga ko. waaw xam naa te xamu làmb rek. xamu làmb su ma la ko laajee mooy lan. mooy euh, ay combat yu muy bëri laay suivre comme nu may waxee toujours man su ma ay combat duma ko préparer si physiquement kese ak mystiquement. dama koy préparer aussi psychologiquement si côté sama adversaire dama koy gëstu si internet bi di ko jàngat. saa ma jullee fajar ba pare damay nekk di xool ay vidéo am di euh, bon ba si communication boo si dama ko siy jàng parce que nit man naa wax ba wax lu mu mënul mais bu jëf jotee li mu mën rek lay jëf donc maa ngi koy jàng bu baax a baax. jàngat nga ko nga wax boo jullee fajar di nga toog di xooli vidéo am jàngat ko ba jàngat communication loo jàngat ci caat mbër mu la dàq bëre la mbër mu lëpp doole la mbër mu lëpp sañ-sañ la wala man mbër nga nar a jàkkaarlool dimanche comme nee nga jàngat nga non vraiment moom lépp lu nga xamante ne capacité am la am na ko. wax dëgg yàlla nangul naa ko ko mais comme damay jëm si combat man ak moom euh, ay lu ma sentir si moom ma koy bàyyi ma ko xel du ma ko dévoiler maa ngi koy garder pour man ay faayam ay fooram lépp suivre naa ko donc li may préparer après le combat lay ma ne expliquer que lii laa gisoon ci moom lii laa gisoon si moom moo tax ma jaar ko fii relax bi quoi. bon ndam moom suñu borom moo ko am maa ngi koy ñaan si barke Cheikh bu Mouhamad Kunta bi ma yaakaar mu jox ma ko mais euh, relax bi du dara lu dul entraîné naa euh, ànd naa ak suma ay mbokk suma ay xarit seetaanuñu ma. Euh, di open press sa yaay ñëw taxaw ay rakkam ñëw taxaw sa soxna say ndijaay lépp barke Cheikh bu Mouhamad Kunta su ma demaatul woon si sëriñ ñu may ñaanal sax loolu rek gëm naa ni ndam la. kon donc freedom alhamdulilah. waaw Modja tey gis nañu macha allah yoof ñëpp génn tey boo xoolee tey mbengeel bi yoof fépp tund bi nekk rek génn na ñëw fekk si la mais tey jii sa adversaire la koy yóbbal na lii rek xabtal la te gis na tey da nga xabtalu lu xew. waaw gars yi génn nañu euh, ñëpp ñëw nañu wax dëgg yàlla et puis euh, bon di remercier euh, particulièrement le maire Abdoulaye Diouf Sarr gis naa vraiment engagement bi mu jël. ndax man dama ma que ne simple mbër laa rek mu nekk si dëkk bi mais muy yëkki téléphone am di ma woo loolu rëy na si man rawatina muy yabal euh, le grand Mbaye Niang Abdou Naar aussi maa ngi gis ay appel am kon donc loolu euh, lu rëy la di remercier aussi autorité yi nekk Yoff yëpp sama papa Birame Gningue euh, le grand Moustapha Tall ak grand bi dëkk Ndinaat bari na bari na bari na bari na mais boo gisee soiwu parenage bi ma def ko Abdoulaye Diouf Sarr du question que man dama ko mën a fal ou dama ko mën a folli mais il est le premier patron fii si commune bi donc kon moom laay defal suma parrainage ngir li ko yàlla teg nangul naa ko ko tey ñaan population yoofuwaas bi yëpp ñu koy ñaanal si jàmm ba yéeneem bi mu am si yoof mu yeggali ko euh, di ko wax ci tam combat bi euh, mën naa nangu caat ëppale ma si lépp ba mu des si côté mobilisation loolu duma ko ko dama koy yóbbante mbay ñàng euh, am naa yaakaar ne dina ko koy yeggale mu jëndal ma ay billet may ma ay kaar bëgguma supporter bu jënd billet dama bëgg may leen ay billet ñu dem stade làmba ji moom pour pour ñu bañ si nekk sax di jéem a laxalaxal di ay xiili xaala amul benn stratégie lu dul arbitre day souffler round d'observation ma def de pa à pas dox si kawam dóor ko day fayu parce que day dëggal boppam ma jàpp ko daan ko si kàddu léegi mojja dama dégg benn wax bu nga xam ne ne yaa ko wax baat bi sax xaw naa diis trop trop trop ah maanaam mojja caat sax moo wax loolu ah da koy rey loolu dafa garaaw de rey moom dafa xaw a maanaam daal ne dina la daan jëlli boo xam ne moom bu keroogee moom booy ñibbi si Yoff yow doo xam wan yoon ngay jaar bu Yoff bon moom dafa wax que ne suivre naa ko dafa wax que ne jàng na sax nu ñuy reyee nit ah, mais je me dis moom euh, xëy na mal communication des fois day am dama koy nangul nit day juum parce que làmba du man je me dis du rayante naxante la te man loolu lay indi loolu lay indi quoi du rayante naxante la loolu lay indi naxante naxante la donte xëy na moom bu waxee kàddu sax xam naa ne kàddu la boo xam ne da koy wax pour jéem a déstabiliser wala neexal mais tey bu ngeen jëmee ci combat bu mel ngeen di espoir mu nekk combat boo xam ne combat jànk la yéen ñaar ku daan combat bi am na fu mu la mën a yóbbu combat bi kon enjeu bi déjà am na ba pare mais tey bu ñu la laajee parce que am na loo xam ne il tamit nit ñi xam ko Modou Dia bu ñu ko doon comparé ak Thiat ci côté bëri kan moo gën a leerle bëri yéen ñaar boo waxee rek parce que bëgg nañ yii moom rus naa ko rus naa di bëre ak mbër mu ëpp ma doole jamono ji euh, rus naa itam di bëre ak mbër di fa wane yaafuus ku ñàkk fayda ndax gis nga yoof gi ma dëkk dadi dëkkul lébu kafuñu fowuñu foluñu reetaanuñu te dama damay dégg sama coach Baye Ngagne maa ngi koy remercier depuis ma nekk xale si moom laa jaar mu naan lawoon fawoon woon ak ñaakoon kon loolu moo am si yoof côté bëre ku dàq bëre nag loolu vraiment du ma si nekk sax di discuter ak Thiam man wóor na ma ne ku ma tegal kaamil ma kitaabu ne maa a bëre Thiam. maa ngi ñaan sama borom maa ngi ñaan sama borom yàlla naa bëre ak Thiam yàlla euh, dóor mu daanu man naa am si làmb ji ma dóor ko mu daanu mais pour pour pour yow ma ma ma éclaircir la si li nga wax yàlla nañu yàpp runkum bëre maanaam ngeen arbitre soufflé ngeen ne runkum jaxasoo bëre wari bëre voilà yaa ko gën a miin yoonu bëre yow. laay lay la man dama am tactique technique automatique. Ah! et puis je suis encouragé. delluwaatal ci li dellu man dama am tactique. da ba pare dama automatique. ba pare je suis très endurant. yéen ñaar ku gën a gaaw. man dama vif. laajal fii brise lañ ma doon woowee. jamono bi may bambat. brise lañ ma doon woowee. ndax gaaw. mais mais Modou tey jii si arbitre sifflé caat njëkkalu si loolu gas ci waa mi fay ak suma maam Baye Moussa Sarr ak ñëpp ñu nga xam ne ñoo génn àdduna mais li may wax ni du lu ma sos suma maam moo ma doon wax dama daan wax namaan moot ja booy bëre ak sa morom ni mu ko daan waxee si wayu léb yi ndey sax fexeel ba ba mu la njëkk a dóor waaye sàmmal say tànk fay biram penda waagaan yàlla na ko sama borom yërëm mais tey côté mobilisation bi supporters yi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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk